Heavyweight.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 pëtëlëw ma ne waa ji ca fa ñuy robee baayam la ñëw man di ba ne tat yor paakam di menacé Pulow ba police la ñu mujjee woo ñu débarqué ci béréb bi daa di koy neutraliser jatan ko yóbbu waaw góore waay sa waay mujj nañ ko defeere parquet ci wàllum menace de mort waa ji def ni mel nag xam nañ ko ci wàllum njombe ne police teg na ko ñaari yoon loxo ci wàllum tux yamba kay nii la mën a demee moo la li wolof waxoon am na doom yoo xam ni dañuy tiital seeni wayjur waaye it am na doom yoo xam ni dañuy teral seeni wayjur jur tey nattu gënu la metti yàlla dénk la yenn xeeti doom yi waaw sa baay génn àdduna ñu koy rob war koo yóbbu jébbal këram gu mujj nga war koo taxaw suturaal ko ba ñu denc ko nga ñaanal ko waaye amoo leen looy def lu dul ñëw ci bërëb bi ñu koy robee mandi ba ne tat di trouble waay waay waay doy na war ba ñëw ci béréb bi jël si la ci kanamu naw la yeeg mbokk yi waay na moo tax yenn doom yi ba bañ doom sax ko gën moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Medina doy na waar ab soxna buy wuyoo ci seejaata moo fa doxe gannaaw ab soxna buy wuyoo ci em njaay koy yenn yet nganni ma ba mbir mi mujjee teeri ci loxoy procureur cay mim réew mu njaay ak see ñoom ñaar ba ñu dëkkee ba léegi nee ñu ko may xaja ki muus depuis ba em njaay ak jëkkëram tuxusee ci kër gi see dëkk ñoom ñëpp di fa ay locataire nee ñu bu ñu tuxusee ba léegi see jaata jogul ci di leen tappaas cey kër yi ba bés am njaay doon na dem marché see jaata topp ko tal di këf posetam yuuxoo ko sàcceey jël la nekkoon ci poset ba ne may waaye kii toppee na ko mbooro de ci noonu am njaay del si ci kër gi daldi di xaar ba borom këramam wàcc mu wax ko ko ci lañ ko porté plainte ca police bu Medina bi ko police de auditionné nag ci la nangoo ne moom la dal di jéggalu am njaay dal di retiré bi yaakaar ne fa lay doxee jàmm ne ñooy waaye ay ayu bës lañ ci teg see jaata xaar ba em njaay wan ko ginnaaw mu doxe ko ginnaaw daldi di fab aw yat ne ko ko tépp hoppataloo boo génnul kër gi dana la rey de ci noonu em njaay dal di delluwaat police daa di defaat beneen plainte waaye nag ci plainte boobu see jaata daaw weddi li ko mi njaay tuumaal ndax nee na mi njaay moo ko provoqué ñoom ñaar ñu xeexoo bali mu mujjee xew dossier bi nag mujj naa teeri ci loxoy procureur kër kër yi nag lu ni mel yàgg na faa am kenn du xajoo ak sa morom te bokku benn kër waay munul ne waay xiiroo guddi xiiroo ngoon seen jëkkër yi xëye uti lu ñu lekk ñu des ci kër yi di xiiroo xuloo ko xeexoo moo tax léegi boo xoolee góor yépp yooyu bokku ci songoog jabaram boo wattuwul mu duma ko duma yu métti waaw yow da ngay xëy yendoo dang-dangi wàcc ña war a noppalu di atte ay xeex ak a xuloo ak ba fajar nga yeewu wati fajar xëy sa xel du dal ba ba ngay wàccan ngoon waaw loolu naka la ko góor di defee ba nopp di gudd fan moo tax léegi boo xoolee ko góor ñi rek kay dem kër goo romb wila madame nangam ñu rey de moo tax ma ne jàngoro dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca tuuba doy na waar ab ASP la ñu fa arrêté ci wàllum raket ba placé nañu ko fi mu ne sous mandat de dépôt ASP boobu mu ngi wuyoo ci turu Anjaay jàllale nañ ko ci kaso bu Jurbel li ñu koy toppee nag mooy wàllum extorsion de fonds ak li ñu naan usurpation d'identité ASP bi ndaw la am jabar ak ñaari doom di ab ancien militaire ci kanamu enquêteur ya ca police bu guy mbind ca Touba ASP bi ne lu tax muy def lu ni mel day xëy nekk ci tali bi ba ngoon du am lu mu yóbbul njaboot itam ay waay ne ci noonu nag la doon arrêté oto yi di laaj chauffeur yi njëgu attaaya ay waay ndaw sam waaye nag sa waay weddina nee na tëneem la doon sol te it wax chauffeur yi ne moom ASP la hmm, waaye ñàkk baaxul waaye it moo la li war a fooxoon lu naar bu ndaw bi gis ma ci naar bu mag bi la ko gisee waaye ma ne ASP yi la ñu yab laa la wax ñaata yoon ngay nekk ci kaw tali bi gis police di rakkete chauffeur yi hmm, waaye de moo ma jaaxal moo tax ma ne jangoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax Moustapha Diakhaté nag li mu wax ëpp na ma ne li mu wax romb na doy waar laa wax te it xam naa ne ñemewu ma cee jaar moo tax ñi yilif réew mi ak ñi ñuy jiite war nañu bàyyi xel ban réew la ñuy jiite réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent yëpp Seydina Muhammad la ñuy noyee yenn kàddu yi di ci jib ci ab kilifa boo xam ne occupé na ay fonction yi gën a mag ci réew mi ma ne xanaa colon yi sax bu ñu coloniser ab réew danañu fexe ba xam sociologie wu réew moomu jàng ko ba xam leen ba bu ñuy wax danañu soorlu leen di blessé waaye man damaa jaaxle réew moo xam ne Alaaji Malik li mu jàngale ci yonent Serigne tuuba Maam Baye ñas Cheikh Sadul Abi Maam Limaamu Laay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñuy gàmm di màggal yenn propos yi di génn ci yonent bi noo doy na waar waaye comme jéggalu na nag mooy Sénégal mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz